mbokk salaamaaleykum benn waxtu jot na ñu ngi rafetlu ànd beeg télévision Futurs Médias li ci gën a fës bokk na ci mbas mi tey senegal am na lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ci ay cas ñaari nit ñàkk seen bakkan téeméer ak juróom-benn ñoo wér ba dellu seen kër mu mel ni kon ñi ngi ci ñaareelu vague bi kaayi yu di ba tax na waa kër ministère bu sant di sàkku ci ñi ñu jëfe geste barrière ci jamono jooju moom ñi yëngatu rek ci wàllu. restauration ak borom boîte de nuit yi nekk fii ci Almadies jafe-jafe lan am ndax dana leen bu 23h jotee ñu tëj seeni buntu bunt loolu nag ci feetu décembre yi ñu waajal gàllankoor gu mag a mag ba tax na sax am na ñoo xamante ñi ngi ñàkk seen xëy ci noonu tey ci ngoon jëwlin jin dénk wàll biir réew mi dana dajawaat ak kuréel gin dénk acteurs culturels yi su ko defee ñu xool lekk nee say def ba yoxamal mbir yi ñu mën a wéyal seen i activité ca Podor Ndandaan foofu nag ñi nga xamante ñooy producteur soble si ñoom ñoo ami jafe-jafe li ko waral mooy bay nañ ba pare ngir jaay ko nag am ci gàllankoor li ko waral bokk na ci it tali yi nga xamante ni baaxuñu ba tax na conseil municipal ba ña ngay woote wàllu soxna Aminata Touré moom it ne rek ñaareelu mandat kenn waru ko mën a weesu fii ci Sénégal ñi ànd ak moom ne dëgg la ndax loolu constitution bi moo ko ak président Macky Sall mi tax mbir yi jóg moom it moo ne woon kon ñaari mandat ca la yem di ngeen déglu Bassirou Dieng mi nga xamante ni kon moom moo jiite communication bu soxna Aminata Touré jiite woon fi conseil économique social ak environnemental nekkoon nit jëw leen ju njëkk fii ci Sénégal mbokk yi su ngeen taaxirloo ñu yaatal xibaar yi daleen mu mbokk yi ci xibaar yi ñu tàmbalee kooku wàllu mbas mi ñu temeeku nag ay ayubés a ngi nii kaay yi di yokk fii ci Sénégal tey daanaka téeméer ak ñaar fukki doomu aadama am na mbas mi ñaar gaañu ci lu toll yit ci téeméer ak juróom-benn ñoom ñoo ci wér ñu nekk ci sauvetage seen ab lim toll ci ñaar fukk ak ñett bu nu sukkandiku ci docteur Mamadou Ndiaye mi jiite direction prévention ca ministère de la santé moom moo def point du jour bi. ministère de la santé l'action sociale examen virologique yi may waa a lim ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn kaa bu jógee bitim réew maanaam mooy importé waaye am nañ ci juróom-ñetti fukk ak juróom ñi nga xam ne ay ka communautaire lañu mooy ñi jot ñi mbas ñi fekk xamuñu fi ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee Touba am na ci juróom-ñeent juróom Plateau juróom Rufisque ak Saint-Louis ñeent Almadi jurbel Podor ak Richard Toll ñett Fann Résidence Guédiawaye Ouakam Ouest Foire Thiès ak Yoff ñaar ci Mamel Matam Mermoz Parcelles Assainies ak Point E benn ci Daaru Musti jam Diamniadio Dieuppeul Kaolack Koki Louga mbakke Mbao Ngor Sacré Ourossogui Sacré-Cœur 3 Sicap Baobab Vélingara ak Yeumbeul téeméer ak juróom-benn malade si ñi entré woon hôpital wér nañu bés niki ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak juróom ci weeru desam biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-ñaar ak ñett téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-benn ak ñetti téeméer ak ñeent ak juróom wér nañ si ñetti ak juróom fukk ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des juróom benn téeméer ak fanweer ak ñeent ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñoo ñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñoo ñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm des ci mbas mi ba léegi ca Bambey service di d'hygiène ñoom it euh, jël nañ rek seeni matukaay ngir pompe yenn ci barab bokk na ci gaaru ceer yi ndax euh, jàpp nañ ni rek comme mbooloo dafay daje bëgg nañ même bu fa mbas ma amee mu bañ koo génn ba tax na kon démb ak euh, barki démb yi jël nañ matukaay yu ama am solo ngir dugal ko ci wàll woowu Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. bàyyiwuñu fenn wala foo xam ne nii xalaat nañ ne virus corona bi war na faa mën a toog wala mu laqatu fa ñi nga xam ne ñooy liggéey ci service d'hygiène bu Bambey gare routière bi la ñu jël. ak oto ya fa nekk yëpp ñu pomp leen. bu doonuk daay dafa mel ne dafa fiyee ko alors danoo jógaat nag nu ñëw euh, bëgg askan wi jëlal ko boppam moom la tubaab di wax engagement communautaire waaw boo bëggee askan wi bokk ci nag da ngay jaar ci bunt bi nga xam ne askan wi bu ñuy tuggi fa la ñuy duggee bu ñu tukkee ba ñëw it fa la ñuy wàcc muy gaaru ceer yi loolu moo euh, war a waral sunu sunu sunu jataayu tey sunu teewaayu tey fii ci gaaru ceeru ba mbir moo xam ne nii xamoon nañ bu baax li leen tax a jóg te xam nañ fañ ko war a teg. leen ko dañuy bañ ngoon jot wala suba gars yi ne service d'hygiène jaar nañ ci pompé nañ ci waaye benn naaw deewu fi nañu xam ne microbe la ñuy visé tey wu ñu lenn loo xam ne day naaw ca parce que loolu day tax suba buñ fi ñëwee pour beneen mission boo xam ne ab désinsectisation la di visé ay yoo ak lu demee noonu ñu xam kat ne ñu ñu yombalal ñu ko comme ni ñu ko yombale tey. opération bi nag ñii di chauffeur yi rafetlu nañ ko lool. wër oto yi di pomp biir gaz beeg douche yeeg bureau yi ak fi ñuy toog. tey jii de laa ko soxla ma sa gis wax dëgg lu ma gisul lu ma wax lu ma xamul. ki nga xam ne moom lañ fi affecté bees mu jiite sous brigade des jeunes bu Bambey nee na de yeneen action yu ni mel dinañ ko def ci yeneen secteur ci fan yi ñuy jëm ci département bu Bambey. ca Kaolack daara ji naan jim Momar Gueye di CM e foofu nag ab ndongo daara la alkaate jàpp ndax rek ñàkk takk masque li ko waral nag buñ sukkandikoo ca personnel bi ak jàngalekat ya mooy joojee daara. daanaka dara jëfewoon ko fa ngir xeex mbas mi muy lu jëm ci gel wala ay masque kilifa yi nag lan jàpp ni dañ leen a seetaan Ibrahima Diame Fally Gueye yile jànge ci CM ji Momar Gueye dëgg la ñu bëri ci ñoom yor nañ seeni masque waaye nag boo seetee ba ci biir ci biir CM bi le dispositif de prévention pour xeex mbas mi manqué na fii amuñu gel amuñu lavoir thermoflash waxi noppi xale yi soxla nañu assistance ñun ñii di jàngale xale yi ñuy soxla assistance boobu parce que vague bi danger la pour ñëpp. loolu yëpp daaw la amoon daaw bu année scolaire bi passé mais ren gi moom amagul amul thermoflash amul gel. ñu xamal ñu ne sax kenn ci seen élèves yi police daal dina koy interpeller ndax solul woon masque. parce que arrêter quelqu'un pour le non port de masque pour quelqu'un qui n'a pas les les moyens d'acheter un masque vraiment c'est c'est difficile. et cet élève-là, où est-ce qu'il va trouver euh, l'argent constituant l'amende pour Et il perd des quand on le détient quelque part à la police. Il perd des heures de cours et puis ce, ce sera préjudiciable pour lui. ben ancien élève doon jànge ci établissement bi de kon moo daal di dotation pour jàppale ko école bi. tey nag dañuy ñëw gis ne. Euh, am na beneen vague bu jàngoro ji ñëpp di wax muy coronavirus muy def ay jéyee suñu retour au dañ ko marqué waale pour ñëw indi loo xam ne ay masque la ay gel lavoir geste bi nag muy élève muy enseignant muy surveillant rafetlu nañ ko lool waaye nag ñuy xaar bu baax a baax état bi mu andi leen dotation ndax ñu mën a aar seen ndongo yi la ci seconde vague coronavirus bi ñuy lam-lamee fii ci Ndakaaru comme fi la mbir yi gën a tàkkar naa seen nag gouverneur dafa jëloon ab arrêté ne dañuy tëj rek benn bépp barab boo xamante ni kon Euh, dañ fay amal ay yëngu-yëngu ci wàllu musique euh, ak tamit restaurant yi bu 23h jote loolu nag laal na bu baax a baax ñi nekk fii ci Almadi di barab boo xamante ni boîte yi ak restaurant yi bari na li ci gën a yéeme nag mooy dañoo jëloon koppar yu bari def ko ci ngir rek euh, am lu ñuy xaar ci feetu décembre loolu nag bu dakkul moom daanaka lépp léppay tëj te ñu ñàkk seen xëy bari na am na ci ñoo xamante sax nee nañ kon seen i employé ñu toog seen kër Mame Birame Diouf Youssou Baro lii la Dakar By Night di niroog jamono ji li ko dalee àjjuma bu 23h jotee léppay taxaw kon mën ko tuddee rek ab couvre-feu forcé goo xam ni kon am na ñu nemmeeku ko fii ci yoonu Almadi lépp na selew lépp na tekk wuteek jaaba jole ak kon ambiance yi doon am ci quartier UP bi nekk fii ci Dakar. boîte de nuit ak i restaurant yi nga xam ni sax siiw nañu lool ay nit dafa doon nekk daanaka saa su nekk rawatina ci guddi gi loolee kenn gisu ko mel ni discothèque five bi nga xam ni kat gérant bi mu ngi wax naqaram. kilifa yi dañ na ñun ñu tëj suñu boîte yi 23h te ku ne xam na ni boîte de nuit moom minuit lay tàmbali di liggéey kon lii ay jafe-jafe kese la ndax ci dolli dañoo jël koppar yu bari dugal ko ci investir. kon nag yooya boîte nuyu bu dee nag respecté mesure barrière moom fii ñun doon koy def ndax fii ñeent fukki nit gën gaa bëri ñoom ñoo fi nekk. wante organisateur spectacle yi jël nañu ay ndogal lépp rek ngir ñiy ñëw ci bërëb yi mën a sàmmanteeg lu jëm ci respect mesure barrière yi lu ci mel ni takku masque bi. ñun dañoo jël ay mesures yu tar ngir képp ku fiy dugg nga sàmmanteeg moom ngir xeex mbas mi. bokk na ci sol sa masque boo amul masque ñun dañ lay jaay masque rax ci dolli gel yaa ngi fii ak thermoflash fii nag feetu décembre yee tax ku ci nekk la nga amoon ci alal nga daal di koy dugal ngir investir ko. tous les gens de nuit ils ont mis beaucoup beaucoup d'argent. naqar googee bokk kon ña liggéeyal sax Latir Diop ay bisam jafe lool metti ba tax mu sax dax ay liggéeykat ñu dem ci chômage jamono ji. dàq naa juróom-ñetti nit yu doon liggéey fii ndax amatuma lu ma leen fay te mënuma xëy di leen xool ñuy liggéey si te awma lu ma leen jox moo tax ma ne leen ñu toog seen kër ku ne xam na ni nag koppar yu bëri leen jël dugal ko ci lii ngir réfectionner barab yi doon xaar décembre ndax mooy weeru kott woo xamante ni danañ am yaakaar am ci dara ndax feet yeeg ñu fiy ñëw di bégal seen xool kon nag bu dee ñu tëj nañ ko loraange rek la ñuy ñaareelu vague Covid bi ñëw kon ak i jafe-jafe xolu almadi ànd ak moom loolee jurit jafe-jafe ci koom rawatina ci bërëb yi nga xam ni jamonoy feet gi xaalis dinañ ci doon am wuteeg yeneen at yu ñu génn. jërëjëf maam Biram yaakaar mën na am nag ci ndaje mi nar doxaat ci diggante jëwlin ji dénk wàll biir réew mi ak uh, kin dénk aada ak cosaan ñoom nag dinañ dalal acteur culturel yi tey bu ngoon jotee ngir ak wéel waxtaan win tàmbali démb su ko defee kon ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a yëkk mesure barrière yooyu kon ñu wut saafara ci ñoom démb nag bi nu génnee soxna Ngoone Ndour ma wax seen kàddu ci micro Habib fay ak Ababacar Camara ñoom ñuy xaar ñu ngi woon foofu di échanger donc après ñoom ils se sont retirés pour pour parler les ministres pour parler donc ils nous ont demandé que ñu revenir aat suba pour euh, pour euh, à 19h même heure même même place bi pour que ñu mën a conclure pour xool la décision qui a été prise pour que artistes yi mën a def seen euh, activité. pour ñu autoriser ñu sitting ñu def sitting autoriser pour ñu def sitting bi c'était pas c'est pas pour def bras de fer. c'était juste pour montrer que quand même depuis que le Sénégal est Sénégal mosuñu gis artistes yi taxandoo ensemble nekk benn bloc pour revendiquer seeni droits wala pour wax pour ñaxtu ci li nga xam ne ni que ni moom la ñuy daj ci métier bi ñuy traversé donc loolu benn point bu moo doon point bu njëkk bi deuxième point bi moom mooy que ñu dindi ñu demander leen à ce que ñu euh, ñu euh, euh, annuler arrêté bi nga xam ne ni que ni moom moo génn ci week-end bi pour euh, euh, tere artistes yi ñu ñu performer ci spec ci lieu de diffusion yi nga xam ne comme restaurant yi la comme euh, hôtel yi ak comme baar yi donc déjà loolu et puis ñu profiter encore ci occasion bi demander leen à ce que ñu ñu jéem ñu xoolal naka la ñu mën a def dans un futur prochain comment la ñu mën a def pour ubbi salle yi nga xam ne ne ni ne salle yu mag yi tout en tout en respect respectant les mesures barrières. waaw ñun bu saafara amee parce que ci biir coalition wu depuis démb on en a discuté ci suñu réunion bi ñu am bu ñu amee saafara eh bien entendu que ne dañuy lever euh, kii bi nu mu tëddi sitting bi boobaa duñ ko duñ ko def. ñu dem ca Diogo nekk kon ca département bu Tivaouane foofu nag ñuy liggéeye ci barab bii di te di yëngatu rekk ci wàllu exploitation zircon ñoo am lu leen métti ndax dafa am juróom-benn fukk ak ñaar ci ñoom yun dàq te dàq ba tegul ci yoon ba tax na kon bëgg nañ rek ñu amal joyanti ci wàllu woowu su dul loolu rek kon dinañ gën a taral xeex bi ndax jàpp ni daal lu métti la ñu dund ci boobee ëttu liggéeyukaay Cheikh Anta Diop say ñaay ñëpp génn nañu tey jii ngir jàppale juróom benn fukk ak ñaar doon liggéey ci usine bi ñuy génne zircon nekk fii ci jogo te ñu dàq leen mbooloo mi takku dox nañu daanaka lu toll ci ñaari kilomètre genn wàll ndaw ñi jóge Mboro Daaru Xuddoos Daaru Fall ba Diogo ku ci nekk takku morso bu xonq mettit lu lool liggéeykat yi nga xamante ne dañ leen dàq ci seen bërëbu liggéeykaay li ñu fi dajale tey mooy dañuy bañ nooteel dañuy bañ buumu njaam bi nga xam ne si daf ko bëgg teg suñu askan teg ci loo xam ne seen coobare te état yëgu ko inspection yëgu ko après trois mois de confinement et demi nga bàyyi sa njaboot bàyyi say jabar bàyyi say doom GCO amul lenn lu mu lay faye lu dul un lettre de licenciement dem nañ inspection du travail am fa dëgg Michel Privé le le directeur de GCO dinaa dàq te kenn du fi man dara yaakaar naa ne il a défié l'autorité sénégalaise. askan wi nag mer lool yéemu nag ci jëf ji nga xamante ne def nañu ko jëmale ko ci liggéeykat yi kii di imaam Mamadou Diop dëkk fii ci Jogo nee na lii nguur gi da cee war a jóg. GCO wax fa dëgg yàlla xëtt nañu sàrtu réew mi ndax jalgati nañu waxu chef de l' état président moo ne ci biir mbas mi bu kenn dàq benn liggéeykat GCO confiné ne nit ñi ay ponkali magi jëmm nag yu am doole nga xiifal leen ñaari fan suñu jógee ni jox leen ñu ñu lekk wala ñu delloo ñu ci kër yi loolu dama yaakaaroon ni CCO daf leen waroon accompagner waaye warul woon def ñu lu lu metti lii mu leen def dagg seen salaire dàq leen ci lu dul yoon bloqué seen ay compte tasaare seen njaboot loolu chef de l'État ci boppam yow la ñuy tàllal loxo nga jël lu ñëpp régler lii. di doxam ñaxtu boo xamante ne nag su préfet bu Meewaan moom moo leen jox autorisation bi ay sandarma yuy jóge woon la ca Mboro ak Jogo ànd ak ñoom encadré leen ba doxam ñaxtu bi jeex. wàllu mbay mi ñu dem ca jonwaar foofu nag lan fa nemmeeku mooy ñu doon yëgul rek ci mbayam pataas ak gerte daanaka góobun ren ci at dara ci atum ren mi li ko waral mooy euh, ndox mu bari mi moom moo demoon rek ba daal di inondé seen tool yi ba tax na ñoom producteurs yooyu di wootu wala Aminata Goudiaby Abdou Karim Beye ci seen digg tool yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee foofee ca ñoojoor lañu amal jano ak taskatu xibaar yi ngir wax li nga xam ni moom moo leen jaaxal nee ñu nag ay fukki fukki hectare toolu patate toolu bisaab ak itam toolu gerte moom moo yàqu foofee ci île bu ñoojoor li ko yàq nag moo di ndoxu géej gi moom moo fa dugg nee ñu nag mbir mi mi ngi am ci fan yi ñu weesu ba tax na mu yàq tool yooyu yépp dañ fi ñëw si turu association ñoo woon saax parce que dafa am waa mi bu dëkk indi ay tolof tolof indi ay jafe-jafe si mbéyum bisaab bi grande de terre bi si île bii ñu nekk ñu tuddee ko kooko waame bi dafa dikk li fi doonoon gàncax saab mu yàq ko fii la ñuy aussi li nga xam ne moom la ñuy wooyee pataas pour di koy jëmbati feneen loolu yëpp ren dafa gàllankoor. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo moom tool yi nga xam ni moom la ndox mi yàq di wax ne ren jii jotuñoo sax góob dara. depuis le novembre. ci la waame bi ñëw. weddi moom gis bokku ci. parce que fi nga xamee ne foofu nga yaakaar ne lii la war a dundee bu ma yàlla dimbalee eh, nattu weesootul nga ñëw fekkal foofu yëpp woow lan moo ko def géej gi moo ko def nee ñu nag li nga xam ne moom lañ fa yàqule ñu koy xayma lu bari la ci xaalis. jigéen ñi nga xam ne ak góor ñi nga xam ne ñoo daan liggéey fii te ñu xayma ko si téeméer ak ñaar fukk fii seen koom-koom bu njëkk lañ koy jëlee parce fii la ñuy réglé li nga xam ne mooy seen inscription doom li nga xam ne mooy jënd fourniture comme dañuy génn nawet seen première alimentation fii lañ koy jëlee lu am solo la si koom-koomu dëkk bi li ñu béy fii. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo moom tool yooyu te loru nee ñu dañuy ragal dund ay période yu difficile amal ren ji ba tax na nag ñuy sàkku ndimbal ci état bi. Njàndaan nekk kon ca département bu podoor baykatu soble yi ñoom ñoo jaaxle ndax rek mënuñoo jaay lan jot liggéey rek ca tool ya bokk na ci nag ay yoon yu bon a bon yoo xamante ni kon dina tax rek camions yi bu ñu leen saal woon it du leen mën a génn ci diwaan ba conseil municipal ba ban doon daje di càmbal seenu budget ci leen waxee jafe-jafe nekk ca boobe diwaan ñu ànd ceeg Ousseynou Diop ak Habib commune la bu nekk ci département bu na fii ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ci ay hectares dañ ko fi bay at bu jot waaye nag jafe-jafe bi nga xamante ni moo sonal askan wi mooy wàllu yoon. ministre bi yor infrastructure mu dimbali nu te defoon nañu appel d'offre yi defoon nañu yëpp ñu ñaan yàlla parce que ñun ñu sax wax bu ñu waxee ñu ni seen tali bi seen tali bi ñun nag xam nañ ni président fàttewu ko dañu koy fàttali ñu fàttali ñi nga xam ne ñoom la ñu ko dénk ñu jàppale nu ñu defal tali bi parce que ñun loolu dafay daf ñuy oyofal suñu lay. ñoom ñi nga xamante ne ñooy béykat yi nee nañ ñu dafa jot état bi dugal loxoom ci yoon bi ñu mën ko defaraat. mënatuñu am benn intrant bu ñëw boo boo amoon saako engrais sax yaa ngi koy jëlee jëlee taliba boo amee banaana il faut nga nga fay triple la nga doon fay pour mu mën génn taliba boo amee ceeb du dem boo amee soble la même chose. maire bu ñu naan ci kàddoom nee na nguur gi naam am nay liggéey ci am na solo loolu mu ko fiy amal. waaye nag jamono jëlee li ni këtt ni jon mooy ñu taxawal leen yoon yu am solo ngir baykat yi mën a gis seen bopp ci réew mi. parce que mënuñu di bay ba pare. am ay difficulté jëlee ceeb bi wala tomate bi wala soble si sax génne ko ci tool yi indi ko ci tali bi ça c'est un problème président Macky Sall mënuñu indil programme bu rëy boobu tuddee PRACAS li suñ doon bay benn léegi noo ngi bay fukk suñ doon am benn noo ngi am fukk suñu demee ba am ba pare nu am difficulté wu génne ko loolu dafa àndul sax ak politique d'autosuffisance alimentaire bu président di prone donc noo ngi ñaan le ministère de l'agriculture loolu mu réglé na ko ci nu mu gënee gaaw. commune bi la nag am nañ seen votu budget ren jile toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci million askan wi yëpp rafetlu liggéey nga xamante ni gouvernement bi mu ngi koy def waaye nag li na gën a soxal jamono jile mooy seen yoon bi ñu taxawal ko ngir mbay mi gën a mën a ñoŋ. Ousseynou ñu des ak yow ba léegi ci département Podor rawatina ville ba lu fa musul am nag am na fa maanaam commerçant yoo xamante ni dana tëj seen i boutique amal li naan sitin ba indépendance amee ba léegi kon guléet la li ko waral mooy mënatuñoo jaaroo taal ak directeur service régional bu commerce ndax rek waa ji amande yam leen doon teg daal ku deful naka su dul noonu jëlee na ko téeméer yóbbu ko kon ci cent cinquante mille francs muy loo xamante ni nee nan mënuñ koo nangu Omar Sellou moom moo yor seen kàddu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. ñu ngi ci commerce depuis bu ñu juddoo ba léegi daanaka ci la ñuy yëngatu waaye jamono ji yàlla natt nañ ci benn femme boo xam ne contrôle économique boo xam ne xaw ma contrôle économique la xaw ma arnaqueur la ndax contrôle économique nag moo bu la contrôlé nga wàcc yoon di lay mu taxe la taxe yi nga xam ne moo méngóog lim la jàppee waaye boo jàppee ni téeméer franc nga taxe ko taxe cinq cinquante mille lool pour sabotage la duñu wàcc yoon dem nañ ba ci préfet fi ñu toll nii dañoo sës ku bugg dee wexu dañoo sës moo tax lii ñu ñëw dem nañ ba préfet def délégation boo xam ne suñu mag yi yëpp dañ dañ foofu préfet mu ñu sax recevoir si saalam ñi dañu dugg ñuy génn dañu façon bu ne contrôle le prix waaye contrôle le prix waaye la arnaqueur la ak revendicateur la léegi nag bu dee ñun njobootu président lañ ci njiit réew mi lañu bu dee finance bu dee njoboot ministre commerce lañu na wax ci lii lii lii ndorteel gi la ndax mu kenn mësuñoo dégg ci lii kenn mësuñoo dégg ci collé euh, ay ay teleek na président wax ci lii lii mooy suñ derrière derrière mooy suñ premier waaye xeex bi jeexut kii moom nañ ko fi jëlee rek même bu ñu indil ab bàyyi ma keneen kii moom na dem rek. jëwleen jin dénk wàllu xëy ak formation professionnelle nee na dina tàggal lu toll ci ñaari junni marchand ambulant su ko defee kon ñu gunge leen ñu am métier loolu nag am nañ ci njàppandalu DER mi nga xamante ni moom mooy yore rek wàllu entrepreneuriat rapide démb kon la doon amal ndaje mi fii ci Ndakaaru ñu déglu moom ministre bi Dame Diop ci micro Habib fay ak Ababacar Camara. que dem ba mu yàgg nga dem bay bëgg a jóg ñu fi nërmeelu da koy jàng muy formation. président de la république nag dafa gëm ne nit dafa war am métier ma wax léegi que ni ñu bëri ci yéen dañuy ñëw jàng seen jàng yàqu walla ñu jóge daara ja démb ñu ngi kokki ma wax léegi que ni ñu bëri ci yéen dañuy ñëw jàng seen jàng yàqu wala ñu jóge daara ja démb ñu ngi kokki ñu gis fa lu lu lu sedd xol ay xale yoo xam ni jàng nañ wàcc alxuraan bi jàng métier. ci ñetti se ñaari semaines yi jànga jàngagum sax am na ci ñoo xam ne commencé ñu pratiquer mm-hmm. donc ça veut dire quoi ça veut dire que ñi ci ëpp ci ñun ñii def daal man daara sëñ Mor laa jànge lëkkaloo ak DER lëkkaloo ak yeneen structure parce que wax ngeen ko président de la république wàccoon na ak ñun am na vision teg na ay kuréel teg na DER teg 3FPT teg ministère teg leneen joxe mooy tey 3FPT su leen mënee former ci métier yi ma gis fii yëpp c'est parce que dafa am ku ko xalaat taxawal ko joxe moyen su nasaxee nag comme ni nga ko waxee ma ko du ci ñun ñii la ci ñun ñii la wàllu politique yenn kaay yu bëri ñoom ñoo xëy kon daal di rek wax ci génn bi soxna Aminata Touré génn wax rek ci ñetteelu mandat ne du yoon te kenn mënu ko nangu ndax fii ci senegal li constitution bi wax mooy kun fi fal gën gaa ñaari mandat nga mën a am te président Macky Sall it na ko feelu loolu nag ki yor wàllu communication ne soxna si wax fii dara lu bees lu du rek dëggal li nga xamante ni kon ca la mas a nekk muy la kon ñu respecté sarti constitution bi moom mi ngi tudd Bassirou Dieng ñu déglu ko ci micro Modou Fall. mandat présidentiel ñaar lay doon képp ku def deux mandats de cinq ans consécutifs amatoo droit laaj troisième mandat loolu sénégalais ñoo ko décidé le 20 mars 2016 ci référendum bi nga xamante ne le président de la république Macky Sall moom moo leen ko proposé woon bi loolu amee it dégg nañ fi. Euh, le président de la république à maintes mu ne moom dossier boobu classé nañ ko ndax bu ñu ko falaatee en 2019 moom mooy nekk euh, deuxième mandaawam te donc euh, Mimi Touré euh, à maintes aussi bu ñu ko laajee li nga xamante moom lay ñëwaat ci mbir mi di ko wax mooy fàttali li nga xamante moom la président de la république doon wax ci sujet boobu donc amul lenn li nga xamante lu bees la wala madame la euh, présidente Aminata Touré moom mooy valider ou invalider. te fàttali bi bàyyiwul ba génn ba génn conseil économique social et environnemental maanaam pour fàttali ko à maintes fàttali na ne. maanaam ki nga xamante moom mooy euh, moom mooy euh, le président de la république wax na ne maanaam moo ngi woon ci deuxième mandat wu ca euh, Sédhiou nag foofa CDEPS ba di bërëb boo xamante ni day dalal ay ndaw la ko waral nag moom mooy rek day bërëb boo xamante ni buñ sàgganul dana daanu màbbu boobu bokk na ci rek lu toll ci juróom fukki at a ngi ni te kenn defaru ko loolu nag ñoom ndaw ñi bëgg nañ ci ñu indi ci saafara li ko waral mooy ñoom ñu ngi fa doon amal ay raxas ak yu ni mel ngir yeesal ko wante daal bëgg nañ kilifa yi dugal ci bu baax a baax seeni loxo Bakary Konte ak Xaali SOPS bu Sédhiou ñu ngi koy tabax ci ay années cinquante wante nag fu mu nekk nii bâtiment yi dañuy màgget loolu mu nekk ci état boo xamante ñaaw na trop ndaw yi bëgg ci nu ma gën gaaw ñi daal leen tabaxal beneen SEDEPS bu bees. SEDEPS bi daal yorul dara en réalité bâtiment kese moo fa nekk yoruñu chaise yoruñu sonorisation yoruñu dara mais je pense que c' est pour attirer l' attention des autorités mais surtout des autorités centrales ministère de t pour d'avoir de, de, un nouveau CEDEPS. Mais il est important de réhabiliter ce daal Parce que l'image des autres régions aussi, c'est du Warnak bénéficier du bu Boubès, comme euh, Bunkiling, comme Goudan tamit daal Ndaw yooyu nak nek fi ci diwanu Pakao ñom nak daat nañ organiser ci bir CEDEPS bobu journée d'investissement humain daat kay sétal. Engagé wu nañ et c'est une activité bo xamné activité citoyenne la. tey nga xam ne jamono ji ñuy wax naan légui xalé yi Euh, fonkatuñ citoyenneté xale yi dañoo am crise lu ñuy wax crise de citoyenneté tey yaakaar naa ne montre nañ exemple pour toute la population de Sédhiou wan lañ ne c'est possible euh, ñu defaraat Sédhiou Sédhiou duñ ko defar sans sans ñun Sédhiou ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko bokk kon ku nekk da ngay bay sa waar. bëri na ay infrastructure de jeunesse yoo xamante ne ñu ngi leen doon tabax fi ci diwaanu Pakaaw ba léegi parewuñu lu mel ne espace municipal centre socio-culturel ndaw yi nag yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou ñu bëgg ci nu ma gën a gaawee ñi daal di jekkali travaux yooyu. li gën a fës ci yéen kaay ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gor ca wax ja Aminata e ko wax ubbi l'observateur premier ministre ba woon présidente conseil économique social gouvernemental ba woon di Aminata Touré moo doon def démb ab conférence virtuelle ak waa National Democratic Institute journal bi wax ñu ne ca waxam ja ba muy wax ba yegg ci waxi troisième mandat bu Macky Sall bi ñuy wax ca la waxee ne Macky Sall amu ci droit ndax li constitution bi wax ci mandat ci présidentiel yi ci bopp réewum Sénégal dafa leer boole kooku it moom day mbili gi di Macky Sall ci boppam wax na lu dul benn du ñaare ne du def lu weesu ñaari mandat ci réew mi na benn mi ngi ci beneen bu féegalee xam ne kon pare na ci mandat ci bopp réew mi Aminata Touré ne na askan bi ci réew mi ne gis nañu ci réew yu bari li nga xam ne moom la fa ngàppaaral ci mandat jur ci xët mu njëkk Le mu di fa wax ne coowal troisième mandat mi ngi ci suñu ginnaaw La Tribune bind ne Mimi limité na mandat yu Macky yi ci ñaar ba fàttali li mu waxoon keroog fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ci ne ci lay pare ci bopp réew mi li muy xaar nag moom Aminata Touré mooy ñu respecté constitution bi le témoigné nañu Aminata Touré ma ngay njaay 2024 yi Aminata Touré éliminé te Macky Sall les économies écarté na ko ca keccet ko ca ba mu set wecc nee na a nekk constitution bi mayul Macky Sall mu am troisième mandat ci bopp réewum Sénégal gis-gisu Mimi Touré bi ci coowal troisième mandat Sud Quotidien ak la Sénégal ñoo bokk nañu ko jàngatee mu di lu aju ci wote présidentielle yu 2024 yi Aminata Touré génnee na ca Macky Sall Sall meneen di Khalifa Ababacar moo di dajale ci kàngam yi gën a mag ci opposition bi ngir mën a jàmmaarloo ak Macky Sall Vox Populi dëggal xibaar bi ci xët bu njëkk ba dolli ñu ne Khalifa Sall mi ngi xàll aw yoonam dajale ay nitam ngir ñu ànd taxawal ab front bu mag boo xam ne day ñàkkante ak Macky Sall La Tribune mel na ku naan ñu guddi ñu toll ndax moom Macky Sall tal na ko ndax am na lu ko doy sëkk ak jur jàng ne mu jàngalekat yi di nappkat yi di borom kër yi ba ci étudiants yi ñoom ñëpp a jug jàttu ne soccet fas yéene guerre ak régime Macky Sall activiste bii di Guy Marius Sagna moo nekk ci xët mu njëkk Las Yéenekaay la ko fa yóbbu moo di seeni mbir ñoom activiste activistes yi ñoom la journal bi di waxtaane ba xamal ñu ne yu bari ci dëndub Afrique bi gis nañu ne ci ay ñool ñool la ñuy dëkk ne bu ñu leen xoqutalul dañu leen di tëj kaso baa ñu bari ci ñoom ci gàddaay la ñuy mujjee mujj nañoo dàq magistrat bii di Habib Samba Lawbe Aw yëral xët mu njëkk Le Quotidien magistrat Habib Samba Lawbe Aw moo newoon avocat général près de la cour d'appel bu Ndar coowal jalgati jëm ci koppar yu toll ci juróom fukki million ci mbirum héritage loolee la koy toppee journal bi nañu ci noone ci la conseil supérieur de la magistrature daje àtte ko dàq ko mu jaare fa dem retraite kañ la ay kurpañ di retraité ci géopolitique bi ku xëy jàng xibaar bi ci xët mu njëkk Source A jaar kon laaj lu ni mel yéen bi nañu ca gaabu ga ca Bakel tuuti ko noon musiba mbaa bokkumba am fa démb ndax maire ba di Bokar Hamadi ak Hamidou Ba mi nga xamante ne ji moo jiite école gaabu 2 ñoo fa doon jàppante ba ku nekk ci ñoom génneel sa morom jaasi maire bu dëkk ba yéen bi nañu APR la bokk directeur école ba bokk parti Pastef coowal suuf moo leen féewale ak lu ñu fa bëgg tabax directeur école ba ne du ca dal Issa Diallo di set wecc nee na loolee du dëgg moom soxlawul jëlal ngànnaay jàngalekat boo xam ne matul nit xiibon bon xojongoon boo xam ne boo ko peese woon du mat ñeent fukki kilo jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi fii ne na yem ci xibaar yi laata ñuy tàggoo dem ca beneen studio bu fekk fa Mamadou Ndiaye ak soxna meri Bey Mamadou Ndiaye yéen a ngi wax li gën a fës ci internet bi. ñoo ngi lay euh, nuyu euh, Chérif di nuyu téléspectateurs yi internet yi tey comme ni nga ko xamee gannaaw boo man ak Merry ñëw xew ci biir internet bi tey nag dañu am ab pàcc bu yaatu ci comme ni ñu ko digle woon depuis début semaine bi ci conseiller nit ñi nan la ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi surtout ñu ànd ak prudence ndaxte fi mu ne nii dara wóoratul ci internet bi. da di wax ci ay po yu ni jaay pour xole xale yi ci école yi. waaw am na ay message d' boo xamante ne aussi gis nañ ko déjà présent mi ngi def euh, tollé ci réseaux sociaux yi ñëpp a koy partagé ay jumtukaay ay produits yoo xamante ne commencé nañ ko jaay ci yenn am na ay témoignages yu ñu ci am mais surtout vidéo yi nga xam ne dañ ko partagé ngir gën parents yi gën a bàyyi xel li nga xamante ne seen ndaw yi nañ ko jëfandikoo ci jamono ji ñu toll. kon mbokk yi ngeen des ak ñun ci kanam di ngeen ci ànd ak Mamadou Ndiaye ak Mary ci li gën a fës ci bi fii la ñuy yem di leen di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias